téléphone bi ngay liggéeyee bu yàqoo yaa koy defar bi écran bi amee problème c'est ton problème téléphone yoo xam ne kenn mënu wax du mu mel. Sénégal moo am nu mu demee rek ñu ragaloon a wax mais dañu dem nag ba dañu sës sës nu sonn noonu mën nañu wax sax ni am nañu njàppal parce que ñun ñi genn wàll gi fi booy seet ñi leen dugal. tey si monsieur le maire la jóge Mansour Faye ndaxte ba projet Orange Money bi ba projet Orange Money bi génnee moom dafa seet ay doomu dëkkam mu jël leen dugal si leen ndax bëgguñu liggéey moo tax mais tamit bu tax bu defee loolu bëgguñu liggéey société bi mu nu dugal di ñu utiliser tamit duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk tay nak li ñu bëgg moy kan dañuy lancer appel à monsieur le président de la république monsieur Macky Sall mu dimbali ñu parce que société bi ñu nekk di fa liggéey ñu ngi ñuy utiliser amna ño xamni dañu percevoir 3000 francs de salaire si weeru tabaski bi. nan waxante deug ta yalla tax condition bi mëno ko wax nanu neexee ngeen dem si bërëb yi nu nekk di liggéey kër yi nu taq dañuy dugg si biir kër yi bu amee client bi def retrait ñu daw dugg si biir kër yi di àbb pour def retrait yi